Serigne Touba Fall frère bi indil Gam vite fait Nyolini leen c'est may seen émission Khalas. jaajëf Aliou Ba Jerejef, Moudi partenaire yu graw yi ci émission bu doy war bi di khalas machallah di len sante di len gërëm delu di len nuyu bu baax rafetlu ni ngeen andé ak RFM Radio Futur Media ando ko ak khalas di suñu journal Feu d'hiver noné kon lañuy and ak ak yeen dafa am sama benn way bu nek Touba Mustafa Mbaye journaliste. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a maa ngi jot message am dinaa ñëw ci moom ci kanam tuuti maa ngi nuyu waa Sénégal maa ngi leen di sant leen gërëm di leen ziyaar ci àjjuma ji dellu am mbégte di ànd ak yéen seen émission xalaas Euh, suñu journal fait divers lundi ba vendredi vendredi bi nak mak euh, sama boy bi sama waji sama xarit bi le phénomène passe partout ñoo ci yànd passe ma ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay delloo nuyu Ndiaye di la ziar di la jox sa way bu baax a baax. di nuyu auditeurs yi ak internet di ziar ñom ñep fu ñuy dégloo ci réewum mi bitim réew di la ñaanal jamm Ndiaye. amin yassine Pouy ma ngi lay nuyu bu baax a baax gis na sa taxaway niko niko niko nit ñi di waxé ci xew yi gis na li nga nuyu partenaire yi nga xamné ñom lañuy la ci xalaas nous di sponsor yi ba lañuy sori pass partenaire bi may doolé nous dama lay nga or bu bu rafet mhm. original bu garanti ay bijoux en or de qualité des bijoux en or haut de gamme Beaucoup bëggé da ngay dem bijouterie la Roton mhm. bijouterie la Roton mi ngi immeuble mi ngi kon rue Amadou hassan doy mhm. immeuble la Roton ci rez-de-chaussée bi nous la nekk pass lepp lo bëgg ci ay bijoux en or 18 carats 21 Ankara, ay marque yu yeme xam nga mosoo dégg marque ay bijoux ou euh, pomi mosu mosoo dégg ay ay Kawora wala ay Paola mhm. bijouterie La Rotonde yoy la andi mais euh, arrivage bu bes tak arrivage bu yeme bo xam and dañu ci and ak euh, nit ñi ci ci ci fin d'année mais également gunge leen ko ci année 2023 bi ñu jëm mhm. incha bijoux yu bax bijoux de qualité bijoux en or yu garanti mhm. képp ku ko bëgg ci réew mi demal bijouterie La Rotonde waxna ko mi ngi rue Amadou Assane Ndoye fa la ñu nekk immeuble la la c'est numéro numéro téléphone 77 348 96 96 wala 33 842 65 95 wala 77 639 60 60 bijouterie La Rotonde bu ngeen fa demee laajte leen Arona euh, Ousmane Lam wala ngeen laccé ki nga xamné modi moo Arona wala ngeen laccé Astou en tout cas bu ngeen fa demee da ngeen bëgg di ngeen contane sen sen aajo dina faju ci cadeau yek euh, yu ni partenaire bu ñu andal ci xalaas moy ki nga xamné mom dembu dama dem foire mais gis fa lu doy waat li nga xamné ne hmm. waa mi fay def xam nga mbànd li tax mu neex dem ci mhm. foire bi mhm. mooy boo duggee foire defal tout droit rek ba egg ba egg sa droite lay féete mais ay téléphones yu garaaw ay mhm. ay ay ay marque téléphone ay ay miwan lu ci mel ne A55 bi nga xam ne mi ngi ci promo cinquante mille lañ koy jaayee miwan S11 bi gars yi di njëkkante jamono ji soixante-dix mille la te ci neex mooy dafa am cadeau boo ko jëndee dañ lay may benn AirPod am na miwan A66 cinquante mille am na également miwan Q1 mi nga xamante ne ji wàññi nañ ko trente-cinq mille la ñu koy jaayee

yu mën di doon ah. mhm. lunette médicale lunette fashion. accessoire lunette ñoom la waa Optique Vision Plus Sénégal indi jamono ji nag dañu nekk ci promotion fête fin d'année 10 30 pour ba 40 pour cent ci boutique Optique Vision Plus Sénégal yi nekk fépp ci réew mi Louga Saint-Louis Mbour Touba ak fi nga xam ne moo di Kër Mbay Fall. ak mhm. showroom bi nekk fii ci VDN bi seen numéro téléphone di 33 821 54 57 33 821 54 57 établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère wa Sénégal nee nañu mooy daj dëpp gi. Mhm. ndax établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère gamou vite fait ñom la. yi nit ñi di soxla yi ci baax te gën mën ci ci qualité ak ci prix. ñom la ndax euh, frotté vite fait kan dootu ko lam lamé ci réew mi insecticide bu graw bi di vite fait ay ci yo mbot ak weñ ñom la ciuray bant bi dàq yo di la bayil xet gu neex ñom la ñu andi nak ciuray vite fait mhm. ciuray vite fait awo ciuray vite fait ñaarel ciuray vite fait ñettel bon Moustapha nee mi ngi mais mu euh, ah, crème épilatoire vite fait crème ngir. sedd bi ñu jëm ay mhm. dentifrice vite fait savon king aloe vera wala anti acné ay vite fait yu garantie nak xam nga wàññi ci dugg ay euh, gaz vite fait yu garantie ay mouchoir de poche yu bax marque vite fait. 77 555 11 11 77 806 15 19 76 577 06 63 77 488 51 93 di len gërëm bu baax mais également di sant bu partenaire a Sénégal ci ni ñu safo xalaas mhm. ba tax partenaire journal fait divers la fu ñuy mhm. euh, Cap Manuel mhm. Cap Manuel. ci ñi dëkkee foofu ci logement yi barki dem ba tey ñu ngi may woo. ñu ne ma prison bu Cap Manuel semaine ngi nii amul ndox. prison bu Cap Manuel. waaw semaine. maa wax lii. Cap Manuel. ah loolu dañuy dañuy sax génn di dem di rootaane ci kër yi am réserve réservoir foofu noonu am na ci benn kër këru kilifa gu mag. Mhm. gu nekk foofu fa la ñuy dem di fa di fa rootaane. Mm, déedéet loolu jaaduwul. te yenn saa yi tamit ñooñu dañ leen jox ay heures yu ñu fiy dugg. waaw ah, waaw waaw mais jaaduwul nañ ko lijjanti. ah nañ ko lijjanti gis nga nekk ci kaso rek daa doy coono. nekk ci kaso caabi féete la ginnaaw. tëddal hmm. heure jugal heure yamal fii génnal fii yamal fii li ngay lekk. Hmm. bëgg a gis nit ñu ne la doo ko gis tey. waaw loolu rek dafa doy. buñ ci bëggee doole di la ñàkk xañ ndox. Hmm. wala duñ gis courant. wala ñu feebar duñ mën a faju dafay doy waar. day doy waar liñ nekkee rek. Ah. doy na sëkk. muy Cap Manuel. muy muy muy muy prison bu mu mën di doon ci Sénégal. Mhm. nañ leen taxawu ci ci ci ci ci li munta ñàkk na quand même. ok fu ñu jëm. Ndiaye Ndiaye dañuy jégalu suñu auditeurs yi démb comme dañoo xawoon am quelques soucis technique mhm. donc xam naa ñu bëree bëri parce que ñu bëri woon nañu déglu ñu xalaas bi. effectivement waaw. Mhm. dañ leen indiwaat xalaas bu démb bi doo ko continuer. def nga lu rafet xalaasu démb bi ñu ko raté ci réew mi ak bari. ñi ko rate ci réew mi. du suñ coobare nag. Mhm. du suñ coobare. Mhm. nit yàlla da koy sàkk muy dox di feebar. Mhm. yooyu noonu lay mel. heureusement bañ ko comprendre mais day baax ñu indi laata ñu xalaas bi lan moo newoon xalaasu démb bi. yaay mooy ki doon dimbali yaayam. yaay ji feebar ñu yóbbu ko hôpital ñu bind ko ordonnance xaalis mu xaw a takku amu ko. mu dem di wuti ndimbal njëkkee ci mbokkam sottiwul mu am fu ñu ko yabal pour mu wut fu ndimbal mu dem fa. loru fa non kooku sax moom da koo am ku mu ko booleel. ah am fu mu njëkk a jaar. waaw mhm. léegi kooku mu ko booleel nag moom moo tëdd ci affaire ya. joxu ko ko waaw mu génn fa xol bu naqar di jooy di dem far dajeeg benn waay waaja nag moo ko lor. ñu déglu femme déglu. laa def feebaroon ñu nekk hôpital ñu entré ñu seen ñëw bindal ñu ordonnance cent ma daal di ñëw daal di indi ordonnance jox ko sama maam sama maam nag nit ku siiw la woon mais bu ma ko joxee ordonnance mu xool ni cent cinquante mille koy jox ne ma loolu laa am munoo laa am soo munee nga jël soo ma ko ma daal di bi daal di génn daal ma demee ma demaat fekkat ñu bindaat beneen ordonnance teg fa ne moom dafa mu ne ma tey ngaa jël sa ordonnance bi nga yóbbu dañuy dimbali waate benn paap moom moo nekkoon maanaam bras droit maa dem fa premier jour dem fa ñeenti yoon door a gis maa fa demee premier jour toog fa suba ba presque cinq heures si si ay huit heures laa fa dem ba cinq heures mënu maa fexe ba gis ko ma expliqué ko gardien bi nekk si buntu bi gardien bi ne ma toogal rek jàkk ji lay jullee su fekkee moo ngi fi incha allahu rabbi balaa ngaa bala ngaa fee jóge ci fii ak cinq heures di nga ko gis ma toog fa toog fa toog fa toog fa toog fa ba ay cinq heures laata cinq heures jot ma ne ko naa dem ndax sama yaay moo kese moo fa nekk amul kenn koo xamante ne moo koy yëkkati wala moo koy teral su ma dee dem dama koy dénkaane gardien bi ne ma waa léegi dama ma demaat ci deuxième jour bi ma dee gisee gardien daal di àndal moom daal di dem si ginnaaw fi ñuy wàccee saako si may daal di koy expliquer nekk foofu employé yi daal dikk bi liggéey ba pare ñuy yëkkati ay téeméer ay mille francs di ma jox di ma jox ba mu mat ñeenti junni ma dem bi ma demee ma jënd ci ay garab perfergan la daan jël perfergan yi nag dafa am benn suuf bu mu daan ànd loolu moo cheroon ma war cee jënd kees may débrouillé ñu jox ma fa vingt mille ma dikk jënd ñeenti ak kii mi àndal mélange yi mi àndal daal di indi xëyaat dellu bi ci ñeenteelu fan bi ma delloo nag ma daje fa daal di julli ci jàkka ji ba génn ma daal di koy doogaale daal di koy wax sama problème boolem ñaar rakkam biñ demee daal di jël siwaat àndaat ak man ak moom daal ne moom restaurant bi bi dafa war a dem bitim réew ndax volam da koy xaar léegi léegi lépp lu ci war dina ko bàyyee paat ñu dem ñu ñëw ba ba dara resul lu jënd ordonnance yi mu ni ma nee na naa jënd moitié ordonnance mais man li may dem di jënd moitié ordonnance yi naa bàyyi lépp benn yoon ma ni ko bàyyi man ordonnance yi ma ci mënoon a am sax benn jël kay bu ma jëndalee moitié bi mu jël mu ne ma man daal yoruma fi xaalis yoruma fi xaalis génn dem ma daal di génn ma génnee nag noonu di jooy toog mbedd mi di dem dañuy continuer Ndiaye. waaw ñu continuer kay gisoo sénégalais yi am na ñu bëri ñu may envoyé message. waaw euh, naan ñu heureusement bi ngeen ko indiwaatee. Mhm. bokk na ci suñu benn mag bu baax Oumy Ndiaye nekk London. Oumy Ndiaye London. waaw. ay ci ñu yeggale muy génn di dem. am ko mu dajeel déglu. aj daan ne ma soxna Fodé yow sànq ba léegi lay seetlu yaa ngi topp pexe bi di jooy rek ma ne ko a dara man sama yaay moo feebar ma expliqué ko waaj daan ne ma man de yor naa xaalis mën naa laa jàppale ma yaakaar ni sax dafa am yërmande pour man daf may jàppale mu ne ma nañ dem ma ànd ak moom ma dem bi ma demee ma daal toog mu entre ma ne si benn néeg ma toog ma daal di génnee xaalis bi din ng halos sa mabalisak dahil tiplad na mawahmong halos di man nafatsaya. Magkunta niya kan sa lumaydo halos may may may halos wadi. Gagyo halos may galang pagisaya. Gupted ang man. Munog. Gagyo ng adam sayo. Mano ko ha? Mama, mano ko ayaw. Limali is kilikilip. At siya na yung hamad na yung mladag. Dipigin sa may nangini. Mayin di gaman. Yo, amo dalo may wakdululol. Mama, ko lol. Mo ka nalilip. Madem mo mo ko ganun. Kalato mo ko. Madari dyan. Dem. Madok, dok, dok. Bumiyag. Maliman daw kara. ma dem defi ko moo ma gën a faj sama yaay moo ma gënal daal may delluwaat ak loxo yi neen sa fu mu toll ko ginnaaw yàlla jërëjëf bi sama yaay yaakaaru kenn ku doon man naa dellu boobu xamu dara xamu sax lan may góor ma daal di na ko léegi na def ma lu ko ne li ma gën a naqari ba naqari ma ci bi tëdd ba ma tëdd de ba ma tëdd woon te jox ma xaalis bi sax nga ni waaw waaye waa ji ab cinq mille francs la yëkkati ma ko ne ma loolu laa la mën a léeg-léeg sax loolu daf may jàpp ba sama borom kër léeg-léeg dinaa toog ay fani fani fan du ma nangoo sëy moom daf ma bàyyeewul ba léegi moom day toog ba muy àll mu maan bëggoo ma te man mënu ma kaa ma daal di génn ma daal ne cinq mille bi dama ko fi bàyyi a mënu maa ñàkk ba pare di na xaalis di dem di bee sama yaay wax li ngay génn dox sax mënu ma ko damaa génn ba daj benn boutique ma daal ne borom bitig bi man de damaa dëkk ba fii mu gis règle te yoruma xaalis bu ah, ma def sama kanam borom bitig bi daan ne ma ne ah mun ma mun ma wax ma ne ko sama biir bi tamit day metti borom bitig bi may ma extraire gan ak tampon daal di koy utiliser daal di dem bi ma demee ba jox ko docteur bi nag daal di dem tëdd tëdd fa di nelaw nelaw presque nelaw naa suba ba ngoon jot ñu daal di ñuy gën ñu teg ci ay weer presque un mois deux mois yooyu noonu may feebar may feebar rek depuis loor may feebar rek am maa ngi jàpp ne la may def moo tax may feebar naka te yoon boobu damaa toll di ma daal di koy wax sama yaay mais expliqué ma dama ne ko sama copain bi moo juddoon sama yaay di ma xas wax ñu naaj bu nekk ma koy wax ca nga am na lu ma sama yaay yokku damay xas di ma xas di ma xas ba man daanaka lu ma indi yëpp daf ma koy xas saa yu xëy wax yu ñaaw dem may wax ma xam la ma xam ne ba fii may waxee yow nii presque léegi mu am fukki at maa moom suñu suñu waxtaan du neex ndax chaque jour daf may traité de caga am naa jëkkër sax mais daf may traité de caga ndax loolu nee na daf koo naqari man caga laa moo tax ma jël sama bopp dem di ko joxe si mbedd bi loolu nag ñoom fi mu toll nii dafay dafay fekk dafa dafa dafa nekk sama xol bi dama métti métti boo xamante ni sama doom boobu ndeysaan dafa mujj dellu li may wasi dama sonn sonn boo xamante ni ndax daa amoon dem hôpital sonn sonn bu métti ba xale bi noonu la mujj loroo si bi may wasim la def morne mu métti ma trop nag ndax li may dund man dong maa ko xam rus naa toog sa di ko expliqué donc moom yaay ji xamul ne ci ci ci ay mbiram la nekkoon. ba def ba def musiba bi ba ñu chantage ko ci. waaw ba mu jëlee ci ëmb. waaw ah waaw léegi nag moom bu mu bu mu nangu ju continuer di ko xas moom kay na expliquer yaay ji rek xëy na bu yaay ji xamoon li ko ci dugal. Hmm. te muy dëgg nag. Hmm. peut-être dana changer comportement ci moom. Hmm. dana am également neneen nu muy doxalee ak moom. mais xam nga la moo garaaw Ndiaye. ci explication boobu noonu. parce que waaju ko def lii maanaam su ko diggoon cent mille cinq mille Ah def na ko. Mhm. amu ci njariñ loru na ci lam ci bëggoon faj fajuwul. muy lu am solo nag ci li mu ko wax d'abord. Mhm. xam nga lii mënoon na koo tëdd toogaale ba deewaale. Mhm. parce que lii am am na ba pare. mais wax gi mu ko wax dina tax ñun. ñu jànge ci. xam ne bëgg bëgg naan. bu mu tax nga fekk peut-être potit nga jëtt nga di ci naan. bëgg bu mu tax nga dem fekk ndox mu ñu fóotee ba baaxatul. nga di ko naan. tooga rek yàlla mi la teg mar wi ah. dina la jox loo ko loo ko loo ko saafara loolu naa ne juum na hmm. li ko metti sax amaana xëy na du du njuum gi carrément hmm. mais way juróom yi mu bëgg hmm. ba tax mu jaral ko yenn yi di dégg ci moom yenn baat yu naqar yi mais loolu nag yow doo ko faj man duma ko faj keneen ak keneen du ko faj moom mii mooy toog ak yaayam moo koy fajal expliqué ko ne ko lii ak lii ak lii moo mu dugal ci lii ba tax lii fekk ma ci loolu rek moo koy dindi xam nga fii Sénégal dañuy sàggane lu am solo muy communiquer. Hmm. faw ñuy waxante. réeroo amul de il faut ñuy waxtaan. dañuy jàpp dañuy communiquer fekk dañuy parler. waaw moo tax mooy li ma la wax moom na dem toog ak yaayam expliqué ko kaa te keneen ku nekk ci situation na la leer ne bis boo defee lu yàlla bëggul. Hmm. wala nga def na ko su dul noonu ak lu situation bi tar tar tar lu mu compliqué compliqué. Hmm. fa muy mujj ak yow mooy gën a compliqué bu dul ci kaw suuf di ci li ma la mën a li ma la mën a dëggal de mooy. Mhm. ci li ngay wax nii. Mhm. fi muy wax dama ko xam te dama xam fu mu mujj. waa ji mujj ji xaw ma ko de. mais fi mu jot a jaar ba ñu ba ñu ba ñu. ba ñu jàndi ko ba mu mujjee fii. dama ko xam te xam fan la mujj. xam ñu ko def te mujjul fu baax. ñu ko def loon bu baax laa la wax man la maanaam foofu mu jaar man lekk naa seen xaalis man. Hmm? waaw parce que liggéey naa fa. ah waaw da ngay wax loolu da nga naa fa. waaw lekk naa seen xaalis. boo ne lekk naa seen xaalis xam nga ni ñëw dañoo gaaw fi. liggéey léegi ah, eh. Ndiaye yoon war naa génn nag ñu si nag xamul tax. Hmm. Ndiaye dañoo toog fii def ay téléthon ci télé yi ay TFM plus ñu génnee fi lu mat ay 1 milliard kek ci benn téléthon sëñ mun daxaa génnee xaalis ñun ñëpp ñu génne xaalis ñun ñu jàpp ñu tëj ñu suñu biir kër yi ñun nañ bu leen génn. Hmm. waa Ndiaye léegi nag Ndiaye yaa xayti nag coow lii bu amee nañ génn ñu leeral nit ñi ne lii ak lii mu xew bu fekkee daa am ku ku ku guux mu goxi <laughs> walla yar bi dal ci kaw ñun on est des citoyens njaay tamit nag ñun ay ay tiram lañ bokk. alalu mbooloo di àq de ku ko bàyyiwul. Ah. xaw ma ñoo lekkam lekk ñu de waaye day àq day àq. ku ci ku ci lekk daal ko moytuwul mais daa am benn information bu. mais mais dofuñu quand même. Uh-huh. ba yëkkati coow li di ko tegaat. danañ ko leeral. Sénégal waaw. gis nga li tax sax leeral ko baax mooy euh, ëllëg si biir boo demee ci yeneen réew di wuti ndimbal. waaw bu ñu bu ñu defee bu ñu leen dugalee seen bopp ci ne li ngi leen di jox dañ koy sànq. Mhm. wuti ndimbal du la yomb. moo tax il ñu leeral ko. Mohamed ñaata scandale ñaata scandale nga dégg fii Sénégal bi nga dee Mohamed ba tey. waaw man daal ñi ngi ci bii nañ leeral. non déet dama ne ñaata scandale nga fi dégg bi nga dee Mohamed ba tey. waaw mais bëri na. est-ce que est-ce que ñu ne la scandale bii bo mbiru 6000 milliards yii mbirum 400 millions yii bii def nañ ci liggéey ba sotti na fii la mu. si si am na. ah man de am na am na am na kilifa yu fi tëdd ci kaso. léegi nag man Ndiaye ñaari information yi ma ko jox non bi mooy. waaw Ndiaye lundi férié la. lundi ba ah. la génnee. waaw wala kon liiruloo ko. benn bi mooy. 2023 mhm. juróom-ñaari fan moo ci des. Mhm. xale yu jigéen ñi amagul woon jëkkër. Mhm. nañ muñ 7 jours seen bu ko wax la waxul dara allo présidence